bon ah. euh, bon Malick loolu dama comme que bon moom il est contre euh, euh, la loi dama pour Macky moom moo ko proposé je ne sais pas ma xam kan moo ko xelal et tout est-ce que jàppoon ne Macky Sall fin mandat bi euh, le fait que mu proposé façon loi bi ñi ko ko bon c'est que que que je te pose soit ñi koy conseil ñoom ñoo ñoom ñoo seen i conseil moo baaxul wala est-ce que Macky Sall moom moo nekk si dérive bu xamante ne bon dérive de telle sorte que muy proposé genre loi bi nga xamante ni c'est impopulaire. non man dama njortu que ne président de la République depuis mars deux mille vingt un ba léegi dafa dafa dafa réer parce que réer mooy que ne ñi nga xam ne ñoo koy jox information joxuñ ko information bu baax mooy que ne ci gouvernement mooy ci ministres yi mooy ci directeurs yi parce que dem na ba essan bi waroon na xam que ne carrément li ñu ko doon wax yëpp ci population bi amul parce que bul fàtte ne man fii laa toogee woon seen plateau fii ne dama ne rapport des cours des comptes képp ci impingale dañ la war a woo fii laa toogee woon seen plateau ne dama contre un ministre de la république ministre de la jeunesse bu taxaw ne damay mobiliser 2000 jeunes pour dem génne ji te sénégalais boobu ñu nekk tey sénégalais boobu politiciens yi taxaw di wax loolu sénégalais boobu la ñuy gis suñuy doom di dee ba léegi ci géej gi ci lan amatuñ confiance ci réew mi ci lan amatuñ ñi ngi dund ay jafe-jafe nga dem ci sénégalais lamdaa bi nga xamante ni tey moom mu ngi war a dem am 1000 francs pour dem xëy dem jaay ji fonde pour mën si joxe dépense añam mille francs boobu pour ndékkee si tey mars ak kii tey ko tey bu xëyee du mun a dem rond point Liberté 6 wala bu xëyee tey du dem ubbi ci magasin ba parce que bañ nañu toroxal ko kon ñun président de la bi war na mën a delloo si waat xelam xam ne ay ministre am ak ay nitam ñi koy wër mais duñ ko doon wax dëgg man nag mosuma bokk ci ñi nga xamante ni dañuy taxaw bokk ci mbir mi te doo ñemee wax li nga xamante ni mooy dëgg parce que dañ ñoo fal man mooy li ma doon wax toujours ci plateau télé dama ne bu président soxlaa ki ma àndal de ministre Abdoulaye Seydou Sow mi nga xam ne ni ku ne xam na ko ci ndaanaanam soxla askan wi soxla ma bàyyi leen ñoom ñëpp ànd ak askan wi parce que askan woowu moo tax tey président Macky Sall dégg président de la République Abdoulaye Sow dégg ministre de l'urbanisme de logement man Malick moom bénéficié wu ci kon du ma nangu askan woowu di souffrir moo tax ma toujours que ne li may wax mooy mooy dëgg bi nañ xool fan la nekke mhm. ñu koy ñu koy ñu koy wax ñi bañ kon yow du président ñi ko wër no ñi ko war la. ah loolu est-ce que Malick nekkul lu yomb yow tamit. non non non d'accord. non parce jam ah, ñaar xam nga la la wax. daf ne euh, daf ne c'est responsabilité dafa wax ne moom affaire initiative bi ci moom la jógee. moom la jógee clairement ñëpp waaye nee na bu ko neexoon tam mu jël dogal bi def ko. Mm-hmm. ku ci ne kum neex nga ànd ci kum neexul fekk mu am na am na euh, euh, pour jël décision bi. Mm-hmm. def li mu bëgg a def mais toujours que ne day basé wu ci ñi war a liggéey ñoo liggéeyul ñi war a ñi war a dimbale askan wi ñoo dimbalewul askan wi loolu. tam dafay dem ba président dootul xamati. alors parce que responsabilité yëpp dafa delluwaat ci koom parce que moom mooy ndey mbi gi. voilà waaye nag information yi muy jot ak yi ko ministre di jox ak yi ko directeur yi di jox. Mhm. loolu du mooy intérêt population. mais juste que le dernier mot mot.